ban ban ban position ban rôle ngeen ngeen nar a joué ci élection yi nii. waaw ñun rôle bu ñu joué ak bu ñu yàgg joué. ak mooy mooy euh, poser ay débat indi ay thématiques gëm ni ñun suñu parti gox yu bees Anta. Mhm. alliance nationale pour la transparence et l' abondance amuñu candidat 2024 waaye kenn du fi doon candidat gën ñu ay propositions. c' est déjà un. mais est-ce que loolu c'est bénéfique. non parce que ñàkk bokk ñàkk am candidat. waaw non xam nga ñun amuñu plan de carrière. newuñu ne 2024 par la force dañu ànd ak kenn. mais mën ngeen bokk ci ñi ci ñi maanaam su euh, faire le tri xool sélectionner gis ne kii xëy na nangam ngeen ngeen accompagner ko. waaw mais loolu su ko jaree. gis candidat boo xamante ne ñun suñuy proposition mhm. fondamentalement méngoon ak moom lu mu bëgg mhm. ñu jàppale ko te yàlla tax sans te duñ ci xaar dara parce su faloo rek ñu kon ne suñu projet parce que dañu gëm ne suñu projet mhm. at yii di ñëw mooy projet bu ëpp doole Sénégal te insha allah Sénégal dañ ko dégg on est long terme yàkkamti wuñ ci yàlla xéewal nañu ñu yor suñuy mbir soxla wuñu salaire u état wala poste u pour mën a euh, tekki wala dund donc a euh, euh, consolider. si mm-hmm. waxtaan sénégalais yi di gëm ni euh, duñ ko mélanger avec n'importe